yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago bu Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal dangay def 3w point seen affiche point com nga dal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga dal di topp nag tegtal yi ñu lay wan. mbokk yi ñu seetaan ci seen lamb TV wasaare lamb ñu leen di jaajëfal bu baax ki nga xamante ne mooy muy Pape nga xamante ni lépp lu xew rek ci wàllu pikin mus nañ ci mus na ci dugal xalaatam bépp mbër buy champion ci Pikine rek Pape Sarr ànd na ak yow ñu yëg information bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ci bokk yam muy blessure bi nga xamante ne Modou Lo amee na ko ñu doon waaj le treize bi ñu jëm ci diggante ak Ama Balde far yàlla suñu borom dogal blessure boobu am dañu koy nuyu bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu laaj ko ana Ama Balde ci lan la nekkoon ak moment bi euh, blessure bi amee ci lan la la ko fekk ak lu mu ci yëg Pape Sarr maa ngi lay nuyu euh, maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax di nuyu waa Wasaare yëpp di nuyu waa seen seen lamb TV di mm. nuyu Modou Anta ak caméra suñu caméraman yi mm. di lu tamit seen liggéey bu baax a baax a baax di nuyu waa Pikine ñëpp mm. bàyyiwuma kenn di nuyu suñu waa kër waa kër Lobaat di nuyu groupe équipe bu Rent Dakar yëpp di naan euh, Alain dalal jàmm ñëw na suma frère ñëw na muy Alain Mm-hmm. bu rent Dakar du nuyu Jumbo ak Jogay mm-hmm. ak Modou Anta bi tamit si la si mm-hmm. rent Dakar la bokk parce que daf see def liggéey bu am solo waaw si suñu journée bi ma ko si remercier bu baax di ko ñaanal xam nga di nuyu tamit euh, bépp promoteur bu fi nekk di nuyu président CNG ak site internet yëpp di nuyu population Pikine bu baax a baax a baax a baax a tey dañuy jékki-jékki rek jot benn nouvelle. Mm-hmm. muy blessure Modou Lo. Mm-hmm. ñu ne Modou dafa gaañu dafa am benn déboîtement ci épaule bi. Mm-hmm. yëg nga ko bi nga ko yëgee ci lan la la fekk ak ci ban moment nga ko yëg. waaw ma dama toog euh, ñu woo ma téléphone. Mm. muy Pokola Balde moo ma woo téléphone. Mm. ne ma. Mm. Modou dafa blessé. ma ne ko mais yow am na lu ma la waxoon te mu ngeen jaar ci. waaw. nga wax loolu Pokola. waaw léegi li ma ko wax xam naa ni yéen jot ngeen ci information bi dama bëgg ngeen jaar ci ma mun a continuer. ko wax. waaw. Mhm. Mhm. nga lu tax nga bi mu ngi diggante suñu signature beeg tey tey la def dix huit jours. Hmm. si hmm. ginnaaw. Hmm. dañoo ñëw ma woo Pakola woo Abdou Bakhoum. Hmm. woo es yenn estafu Ama Baldé yi. jotuma nag ci Ama Baldé. dégg nga. boobu dafagul signature bi. boobu dafaguñu signature bi bi si lendemain bi lañ ko def suma ma juumul. Ah? leen Ama waxal Ama Baldé. bu nekkee dafay def frais ci lamba bi. na ko wàññi. ak sarax yi na ko wàññi. dégg nga. Mm. lii mm. man maa ko wax. Mm. li may wax nii pokolaa ngeen di dem jëli ji interview Pokola mu ngi si biir kër gi. Mm-hmm. ak ambourage ki doon wax Ama Balde dafa yore ay jinne mm-hmm. ak ménagère u Balde. Mm-hmm. ma ne leen information yi ma jot. information yi ma jot. combat bii suñu adversaire dafa blessé. mais nag dama dégg ci waxu li Nicolaï. Uh-huh. inco mhm. mu ne Modou France la blessé su waxoon ni Modou dafa demoon faju ji mhm. man ma d'accord mhm. mais France la blessé nanguwuma kon da nga bëgg a wax blessure yàgg la ci Modou Lo fii la da dafa yóbbaale blessure dama ne la ah Modou Lo mu rey Ama Baldé ci mystique il faut mu yónni waa Sénélec wala waa SDE te loolu ñun def nañ ci code loolu ci lan la. damay wax dañu tey blessé dafa am ak wax dafa jot. Mm-hmm. pour mu rey ma. Mm-hmm. mu rey sama mbër. Mm-hmm. loolu noonu moom mënutul jàll. képp kuy nekk Sénélec. dina lever compteur courant. ak SDE. fanweeri nit nañ la topp ba nga def sa liggéey doo ko génn. loolu mooy daan booy bi. waaw loolu moom xam naa ko ci man. mais da nga wax ci sa biir wax léegi nga ne sur bi. yàgg na ci ci Modou nan nga def ba am information boobu ak li ngay wax noonu. foo ko information yi. <laughs> Pape mooy wax. Pape moo tax mu bëgg mu leer. Pape mooy wax. Hmm. Pape Sarr bi wax tey Modou daa bëreeg mbërëm ñaari yoon. Hmm. Pape bi ngay bi ngay di waxal nii. Hmm. daa xam Modou Lo. yàlla dama koo xam bu baax. dama ne la amul benn wax ju ñaaw bu may teg ci deru Modou Lo parce que même bu nekkee juróomi dërëmam. ak waa parcelle def nañ ko ci feebaru jibi ama bi. Hmm. du ko sànni xeer de du ko classe. nit waa Pikine munuñu am ba ma ñëw xas Modou Lo. Hmm. jamais parce que duma ñëw nga may nga defal ma teraanga suñu doom mu nekk ci ay jafe-jafe waa parcelle ku nekk génnee sa ñàkk def ci mais lii nag affaire làmb la. Hmm. ak leeral. lig Nicolay laay wax. lig Nicolay. dafa def benn sortie bu ma seetaan léegi léegi. mu ne Modou dafa blessé France man nanguwuma. nanguwoo foo ko teg fan nga ko teg. déedéet pour leer laa ko teg. Hmm. Hmm. Euh, bàyyi boo blessure bi blessure bi waaw waaw tey muy Pakola Balde sax xam na fu mu amee. Hmm. waaw Pakola Balde xam na fu mu amee. déedéet topp ñu topp ñu ko ñoom moom nu ñuy toppee ñun noonu lañ koy toppee. ñun nu ñuy toppee ñun noonu lañ koy toppee parce que ay nitam yëpp samay xarit lañu. Mm-hmm. ma yéene leen jàmm. Mm-hmm. dama ko xam bu baax guddiñ toll ni te xamuma. mais promoteur bi jël xaalisam jox ko Modou mm. jël xaalisam jox ko Ama Balde génn def sorti boobu nga ne ko loolu nga wax amul est-ce que loolu mun nga. gën a indi leeral. leeral ci waxuma amul de dama ne. am na ni ni Modou Lo dafa blessé. Ah. mu dem dafa ji certificat médical am am na ci droit te loolu la ko yoon may. Mm. mais France bi mu blessé bu mu wax. Mm. laa bañ. man nangu naa ni Modou dafa blessé tappalewul gàlla jàpp ko dafa blessé mais France bi mu blessé laay bañ ba tëdd ci suuf. blessure boobu est-ce que du stratégie boo yaakaar ni. dañu ko teg pour jéem a dafa blessé man Pape Sarr maa garanti ni Modou Lo blessé na man Pape Sarr ba pare am fu ma ko teg fu leer nañ. Pape Sarr wax nga ni le treize bi njortoon nga ni du am parce que wax nga ko staffu Ama Baldé bi yëpp bi nga leen ko waxee en retour ñoom gëmoon nañ li nga leen wax. wala gëmuñu ko gëmuñu ma. gëmuñu ma gëmoon dinañ ci bàyyi xel. gëmuñu ma. Pokola laa woo Pokola Baldé. Hmm. taawu Fallaye Baldé moo ko mu hmm. bokk ci journée suñu journée bi. Hmm. ma woo Abdou Bakhoum. ma woo Ambroise. woo yeneen booy yoo xam ne damay leen su ma su ma waxee wax ji dina egg ci Ama Baldé. ma wax leen ko. parce que suma waajur moo ma teree dugg ci biir kër mbër yi yi ñu toll nii. Hmm. waaw sama yaay mu ngi dund. yaa ngi may dégg est-ce que. Hmm. mu xam ne man depuis bi ma amee seize ans ba tey. Hmm. maa ngi topp ay mbër. gisul ci man ci benn avancement ci loolu. dégg nga ku ci am combat nag dam lay taxaw mais yooyu ma doon def man Pape Sarr arrêté naa ko. arrêté naa ko wax dëgg yàlla damay wax rek. arrêté naa ko. waaw parce man. waratuma topp si kenn ñoom ñoo war topp ci man parce que même bu nekkee benn fan sax maa ngi sonn ci ñoom. mais wax nekk Pikinois. Mhm. cent pour cent du ma leen jaay soo ma joxoon milliard. Mhm. dinaa encaisser sa milliard de pour ma jaay mbër bi mais dinaa la jébaale ci télé bi yëpp ak sa milliard lekk ko. Pape Sarr ak nii nag mooy wax tey heure wax nag dafa jot tey nag damay wax li ma kale ci biir kër mbër yi su ma du kenn nag. Mhm. du sama coobare sama coobare waajur la. lu ma sama yaay wax loolu laay def. Hmm. kon Eumeu Sène même bu amee combat duñ fa gis. Pape Sarr non non non bokkul Eumeu Sène bi mu déggee wax jooju. Hmm. Eumeu Sène dafa dëgg tànkam taal otoom Sénégal yëpp di gis mu ñëw seet ci sama yaay. Hmm. du dëgg. dëgg la ñëw seet ci sama yaay seet ci samay mbokk biir kër Robaat. xam na ni kat grand bi maa ngi mu ngi sonn ci man. bàyyi na léppam alalam yëpp mu ngi koy def ci man xaaral ma dem delloo njukkal waajuram. nii la affaire bi demee. mais dañuy ñëwaat ci blessure bi staffu Ama Baldé bi ñu bi nga leen waxee loolu mu dem ba mu yàgg ñu jékki-jékki gis ni blessure bi am na tey déggante nga ak ñoom. wala wala non staffu Ama kenn laa ci wax. staffu Ama Baldé Ibou euh, Ibou fi fay la. Hmm. ak euh, président suñu président écrit bi foofu. Hmm. Euh, Zil Baldé. Hmm. ñoom aka amul kenn ku ma ko ci wax. wax dëgg yàlla. mais ñoom est-ce que tey woowaat nañ la téléphone. non woowaat parce que ni naan Pape Sarr du nit. loolu rek la ñuy wax. xam naa ni ñoom dañuy yéex a xam ni yow doo nit. non dañ koy yéex xamaguñ ko sax. waa Pikine xamaguñ ni doo nit xamaguñ ni du ma nit. barke Rasulullah xam xamaguñ ma ko dañuy am combat mu des six mois promoteur bi du sax def publicité ma jaay ma ji li ma lay wax nii du tey. dëgg ma dañuy am combat bu mag kenn du wax ci combat bi ma jaay combat bi. liggéeyal promoteur bi te du ma ci lekk liggéeyal mbër bi te du ma ci lekk. léegi Pape Sarr li nga wax nii léegi dama bëgg a xam datu Modou loo ak Ama Baldé kañ la ñuy bëree parce que yow waxoon nga ne du bëre le lamb fi am. du am arène nationale waxoon naa ko. ñu naan ma du fi wax du xej ak yooyu noonu du am yëpp man lii moo taxoon may wax lamb bi du fi am mu ngi si tiktok yeeg lépp lamb Ama Baldé Modou Lo dana naa leen du am dama am sama benn frère bu doon wax booy bi dafa am ay jinne est que amoon ay jinne dafa am ay jinne nag est amoo ay jinne déedéet ay jinne moom moo ne Ama Baldé daa am jinne hmm. tey la confirme tey la wax ji confirmé daa am ay léegi ak Ama kañ la ñu fas yéenee jàpp ni ñoom ñaar dinañ sëkk deux mille vingt cinq vingt cinq waaw ñu ngi ci deux mille vingt deux deux mille vingt deux deux mille vingt trois deux mille vingt quatre deux mille vingt ans deux mille vingt cinq combat bi dina am lu vingt cinq waaw bu Modou jekkee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 combat Ama Baldé Modou Lo Djily waxu nit laa lay wax bu hmm. nekkee dawuma stade di ko seetaan sama néeg hmm. bu may fuural sama ataaya du tuuru lu tax du tuuru du tuuru lu tax du tuuru koo wax fépp laa ko wax ah du am benn turu billaay wala palaat bi du am ndox du tuuru hmm. lé waaw <laughs> yëpp ma vaar non match nawetaan boobu sama équipe la muy équipe bu Ama ak équipe bu Modou muy bokk jëf bu parcelle. Hmm. mu ñoo doon footballandoo fii finale région nationale. Hmm. régionale stade Demba Diop ñetti yoon ñu football ko mënul egg ndax ay coow. loolu moo leen topp ba ci làmb boobu. waaw dem leen ngeen laaj ko kan moo ko kan nan nan la ñu parcelle gagné ñun dañoo dugal. dañoo dugal waa parcelle yi wàcc si biir stade bi. Mhm. coup franc lañ teg dugal ko. Mhm. ñu ra ñu rapporté match bi. ñoom tamit ñu ñëw dugal ñu ñëwaat ñu ñu defaat ko deuxième édition ñoom ñu dugal ñu ñu wàccaat ci stade bi. Mhm. ñun. mais Pape Sarr man bëgg naa ba léegi nga leeral ma ni yéen waa pikin kañ ngeen jàpp ni arène nationale di ngeen fa ñëw pare pour bëreeg Modou Lo man loolu laa bëgg a xam. déggoo ma ne la bu mu bu combat bi amoon. man Pape bokk naa. ñi ànd ak ay kilifa ak ay mag jëli ji Modou Lo ba ba tribunalu Guédiawaye mu dugg si jàmm ak salaam mu génnaat si jàmm ak salaam man Pape Sarr. loolu laay xeex te loolu laa bëgg mu bëre si jàmm bëgguma ci kenn ku ci gaañu contraire suñuy gaañ nañ ñu gaañ ñun mais bëgguma kenn koo xamante ne benn deret bu tuuru bu jóge ci waa parcelle. promoteur bi lan nga koy wax promoteur bi tëgg làmb bi. ah promoteur bi tëgg làmb bi léegi Nicolas loo koy wax. promoteur bi di ko féliciter rek. di di ko wan ne jàmbaar la. Hmm. waaw ne <laughs> nañu doxal terrain neutre ah. da bëgg a wax neutre amul ci diggante. Mm, mm, mm. nanguwuma nanguwuma nanguwuma ñoo neutre waaw oh, non nanguwuma man man oh, déclaration boobu nag man su ma su ma nekkoon man ah père Birame ñi ngi moo ko waroon def moom mi tey bokk ci staffu Modou Lo déclaration boobu tey. Hmm. moom promoteur la d' naa. Hmm. mais tey. wax dëgg yàlla première sortie bi Modou loo war a njëkk def ci blessure am hmm. comme moom moo dem dugali certificat médical am CNG. Hmm. moom père Birame ñi ngi moo waroon génn wax ci génn def génnee leeral avant Luc Nicolaï di wax kon yow da gis ne promoteur bi warul yëpp loolu la ñuy wax man mais man tey samay mag yëpp wax nañ ko hmm. nee nañu tey bi dafa ànd ak Modou waxu du sama wax nag mais samay mag yi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 booy wër ko foofu bokk naa ñi dàq booy ba mu dugg ci otoom dugg si jàmm. Mhm. soxlaam moo ko indi woon polisu Pikine tey bu buggee ñëw tali bu mag amul kenn kuy téye Modou Lo. Mhm. bu dëgg. Mhm. ko benn Pikine ma làmb moo ko booleeg Ama Baldé. mais la jaay naa ko mu lekk jaayati ko mu lekk. man ba mais mais plaisir bi soo leen demoon di ko dégg micro sax du mun a wax. amul benn waa si koñ bi nii koy dëkk micro mooy wax li may wax di ak sama sorti bi léegi-léegi dem leen ngeen gis ja Abdou baaxum wala Pokola wala Ambroise wala ku jege Ama Baldé ndax li may wax nii du si jaaraat jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax Pape Sarr ñu bu baax a yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg a seetaan gala bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organiser ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Thiatou Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa cot ma lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneen réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal da ngay def 3W point seen affiche point comme nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan.